man sant naa yàlla kuy waxtaane Sëñ Tuubaa fu mu ko mën a waxtaanee Saliou daa jàpp ni moom nga koy defal parce que li ma Sëñ lebal su ma jëloon sama askan wépp seeyal ko ci yoonam wii du tax ma fay la daloon sëñ Issa Diagne bis ba mu koy wax ne damaa bëggoon a am àdduna ak li ci biiram te sëñ bi bañ koo xam ni day mel ni ku bëgg àdduna mu ni ko Issa ana loolu la koy doyee mu ni ko ma sante la ko rek mu ne ko Issa loolu taxut ngeen jot sama xàq sëñ Issa ni teg ba mu yàgg mu ne ko laaj mënu ngeen di def mu ne ko mbàkke nu nuy def mu ni ko ngeen yëg ni naar bee fi indi xorom si waaw ngeen yëg waaw ngeen yëg naar bee fi indi xorom si bàyyi sëriñ fi mu toll nii comme man maa fay naar bi xorom si naa yëg ni naar bee fi indi xorom si rek man mënumaa fay naar bi xorom si waaw mënunoo fay naar bi xorom si kon nañ yëg ni naar bee fi indi xorom si man nag yëg naa ko bu wér yëg naa ko bu wér li tax mooy soo gisee ni Saliou Samb génnul rek ma nga këram mooy dañoo tëj dëkk bi waaye bu ñu tijjee dëkk bi la Baye Moussa ko waxoon damay daal di dal maa ngi wëndeelu ni ngelaw dootuma toog ci xarnu bi ah sëñ Moussa ko waxoon ci xarnu bi maa ngi wëndeelu ni ngelaw dootuma toog ci xarnu bi man boo gisee maa nga sama kër rek mooy dañoo tëj réew mi li fi ñëwoon lu mel ni lii yàlla bu fi ñëwati nag waaw waaw léegi nag koo xam ni sëñ Touba lijjantin la yow doo jàmbaar dalaa dimbali ba nga marqué sa empreinte ci yoonam bi ci bu ndaw bu juddoo Dakar te bi nga juddoo yàggul waay waay boo santu kuy sant kon sant naa bu baax Amadou suma xarit la yaayam mu ngi fii toog soxna Xadiba dem na ba bu dara xewee këram du wax Amadou wool Saliou day yëkkati téléphone di ma damay def nangam ak nangam bi sàngam kon ñooñu boole nañ ma ci seen kër ñoo xam ne duñ may duñ soxna si duñu ñaanale doomam soxna te woowu du maye doomam te woowu ma waa sëñ bi fa laa dëkk nag kon ku fi ñëw sama gan nga am déet bis bi nag di bis boo xam ni léegi yegg na foofu adduna bépp a koy yëgandoo ndax jant bi waa senegal yendu woon le 28 septembre 2007 Sénégal dañ koo musta yendu mooy guddi góogee nu wax ni Cheikh Saliou Mbacké soxna Fat Diakhaté bàyyi ko na fi senegal musunoo yendu ci ñun génération bii bis bu mel noonu ñun bi nu juddoo ak léegi mosuñoo yendu jant bu mel noonu te booba ba tey yendu waatuwun ko dootu nu ko yendu ku toll ni kooku dootu am barki seexul xaddim maami ñii toog moo waxoon ni sadruhu xabrul asraari dënnam béy bàmmeelu sekkare yàlla yi Cheikh Fall moo waxoon ni gis gi ma ko gis te booba at yi bariwul ndax maam Cheikh Ibra ak sëñ bu mag bi ñetti at lan rawante te bi sëñ mag bi di dem sëñ Saliou fukki at ak ñaar la am kon bi sëñ Saliou di am fukki ak juróom la maam Cheikh Rafal dem mu ni dënnam bi sadruhu xabarul asraar yi mooy bàmmeelu secret yàlla yi waaw mooy la Baye Moussa Ka tontu rek saali Saliou doonay xalifay Bamba te ma nga fa mbuur yor mbóot yi mbóot yi mooy asraar attan yan ba ma wax li tax ba mbuur a raw ci réew mi doonay xalifa baa fa xel meew mi borom bis bi moo toll noonu Cheikh Saliou soxna Fat Jaxate Sëñ Tuubaa ko produit nag moo ko produire dafa am yoo xam ni nit ñi dañu war a fexe xereñ di ci xalaat maa ngi koy wax léegi ci Touba ci ndaw yi Serigne Saliou yi ma ni leen dafa am ci jëmm yi ñoo xam ni sëriñ Touba leen produire produire mooy daana wax demal seetal ma ku mel nangam waaye daana wax seetal ma ñoñ nii la mel ak nii ak nii borom darul mooti ni ko Sëñ Tuubaa wax ci ay critères booba yombul Sénégal ndax booba nguur yi ndar képp nañ àdduna bi ba ku dul lekk moyaal bariwu fi buur yi ndar kepp nañ réew mi laa la wax rawatina Kajoor ak fu mel ni Jolof ba ku dul lekk moyaal bariwu fi sëñ sëñ wax borom daru mooti sëñ darul mooti Cheikh Ibrahima Fati ni ko ceer na nga seet askan wow musuñoo lekk moyaal ba ca seen juróom-ñaari maam dañuy wattu alxuraan maam Ceerno bi mu génnee sëñ Balla Faali Jeng la ko la ca waxal sëñ Balla Faali dana ko loolu de amul sama kër way jur te bari na ñu amul seen kër way jur ku mësta lekk alali buur Cheikh Ibrahima Fati di wër ba wàcc meew méewnu fekk soxna Fati tari mu waxtaan nag sëñ Momadou Assa mu xamal ko ne critères yi la sëriñ bi wax yépp am na fi soxna Fati la ko njëkk a jox soxna Fati la ko njëkk a jox booba sëriñ baa nga cëyeen jolof ñu bari dañuy wax njaareem la waaye booba sëriñ baa nga cëyeen jolof ndax soxna Fati boo déggee ab xaa ab xaa yooyu nga dégg euh, sëñ Mamadou Lamine Diop Dagana waaye ko bi siñ Saliou wàcc bi sëñ Saliou feeñee mooy soxna Fatou daa amoon ku tudd Abdoul Khoudous mu dem waaw mu amaat Abdoul Baaxi mu dem bi mu amee kii nag ab xaa yooyu yàlla na fi des yàlla na fi des yàlla na fi des gi way yooyu waaye boobu fekk na sëñ Tuubaa noppi na ba muy yàble di wax Ceerno critères ya booba kii la soxla woon mooy kuy sauver ndabi jamono léegi sëñ Galas Jatara am na lu mu wax bàyyi si la di ko dëggal mooy baatu defaru gis nga ma def ci ñoom la sëriñ Touba defoon ca mag ña du dara lu dul defaru ku defaru bu ñëwee ci société bi dina amal waa société bi njariñ koo mën a doon te defaru woo li ngay yàq mooy ëpp li ngay defar mhm. ak frais bi waaw daara yi bu ci benn nit baaxe woon coono yi frais lépp jaral na ma ko na kenn baax dafa wax ni dafa wax ni ku nangoo jàng nangoo liggéey defloo leen ko ko sëñ Saliou Mbacké ku nangoo jàng nangoo liggéey defloo leen ko ko ku nangu wut a jàng te nangoo liggéey bàyyi leen ko mu mu liggéey ku nangu wut a liggéey te nangoo jàng ngeen bàyyi ko mu def ko ku nangu wut a liggéey nangu wut a jàng ngeen bàyyi ko fi ndax bu fi nekkee dina am li ma bëgg ci moom mooy defaru ndax dégg ku toog rek dina am li ma bëgg ci moom maanaam sëñ Saliou lii sabab lii sabab nga defaroo fa mooy toog sëñ Saliou daaraam li muy bañ mooy ñàkk toog rek waaye booy toog di defaru defaru googu nag mooy li sëñ Touba defoon ci mag ñi mag ñi dañoo defaru woon gis nga Cheikh Ibra Faat yi bu masaana ñëw ci Cheikh Ibra ci ci Cheikh Ibra Fall wala wala wala wala Cheikh Ibra ñëw ci Thierno bu ñu jëflantee ba pare danga naan ki sant Mbàkke xanaa ki sant Fall ay sëriñam ki sant Fall it jàpp ki sant Mbàkke sëriñam ka sant jenn noonu ka sant ne noonu parce que mag ñi dañoo defar woon ku mas a nuyu kenn ku borom tubaa defar wax ko turu keneen ku borom tubaa defar bu la waxee ki moom da ngay yaakaar ni li gaa ñi doon seet kookaa ko yor looloy defaru nanu fexee defaru nanu fexee defaru ab murit day defaru defaru mooy xol bu leer nanu defaru nan góorgóorlu ci defaru yi xew si àdduna bi murit waru ci bokk murit du tendance murit du parlaxoo ku ne am nga xarit nag man nga ànd ak moom fu ñu tollu mbooloo mi ñun ñëpp bu ñu nekkoon benn groupe dina ci am ñaar ñoo xam ne dañoo xaritoo ñaar ñee xaritoo mbokk goo gis am na xaritam sëñ Tuubaa ñim jur bari na mais sëñ Fallu sëñ Moodu Mustafaa doon xaritam am déet Seex Abdu Laat sëñ Abdu doon xaritam yëf yi noonu la demee et pourtant sëñ Fallu ak sëñ Moodu Mustafaa seen xaritoogu terewul mel ni ñoo jur seen rakk yi ndax fonk leen am déet ah waa ji murit day fexee defaru point bi defaru la boo defaroo nag sëñ Galas Jataraak beneen waxtaankat ak kuy jàng xasida bu la fekkee ci géewu borom Touba bii da koy def ni sa jëmm man xam nga kan laa xamul ci moom dara ki nga xam ni gisaguma ko ci géewu borom Touba yi waaye man ku ma gis ci géewu borom Touba yi lu ma lu ma bëgg yéene naa la ko barke Cheikh Ahmadou Bamba man su ma déggee teraanga juñ defal kok ci yoon wii la ne damay kontaan léeg-léeg sax nit ñi pourquoi nanga ma ni ko déet da ngaa dégg gum teraanga mu dem ci ku dul doomu aadama wala xanaa karam naa ba ni aadama ñëpp a ko bokk di nit ku nekkoon war nga am teraanga xanaa ki dof mooy ki xeeb boppam ci jenn waaw waaw bala ngaa jël benn kàddu ba pare mooy firndeel wax karam naa ba nii adam quand doomu aadama warul xeeb bopp xam nga yàlla kan la bañ kuy xeeb jenn teraanga jërëjëf sëñ Xaadim kuy xeeb jenn teraanga pour yow ñu la jox da ngaa war ko attan yow ci teraanga yow nit ki avant tout sëñ Seydou nit luñ ko terale war na ko attan maanaam poids bi yow war nga ko attan parce que wala xadd karam naa ba ni adam génnoo ci bari na ñuy def fi matadeeg ñu leen di xeeb li tax ñu leen di xeeb mooy dafa am teranga juñ jombale seen bopp rek waaw nit du jombale boppam benn teranga nit du jombale boppam benn teranga nit da ngay xam sa valeur xam yow la kan poids bi lu mu réy nga war koo attan parce que bi nga doonee góor rek nga waroon na mën a doon yonent bu fekkoon ñëw nga ci jamono yonent am de voilà kon lu ñëw war nga ko mën a attan quand man nag sant naa borom Tuubaa yow yaa ma yar léeg ma wax la ko léeg ma ni nit dina dajeeg Saliou Samb mu war ci oto yi sol ci mbasin yi nga naan maa yar Saliou Samb te fekk tey nga xam Saliou Samb bi nga koy xam ni mu mel la mel waaye kii moom a xam xam sama njabootuk baay ba pare xam sama baay xam kan mooy sama baay ci yoonu murit moom bu mu melee nii du ko bett waaw góor a jëf ñu faye ma ko waaw góor a jëf ñu faye ma ko man yoruma sama yëf yëfi jàmbur laa yor ah, yoruma sama yëf yëfi jàmbur la waaye ku mel ni Seydou bu ma ko waxee ci kanamam dinañ ko comprendre su ma nekkoon fii naan sama baay ab dof laay doon mais bu ma ko waxee ci kanamu kii dina ko comprendre moom waaw waaw waaw Baye Serigne damaa bëgg damaa bëgg damaa bëgg ñu jox la barke Cheikh Ahmadou Bamba damay bàyyi damay bàyyi mais man maay bàyyi jox la mais ma Baye Serigne damay bàyyi jox la dafa am lu ma doon leeral rek damay bañ benn programme ñu boole ma ci kuy genge mbaa muy concurrent mbaa nangam ci ku nekk ci Sëñ Tuubaa man ku nekk ci Sëñ Tuubaa yaay man maa yow na ma ko ñëpp dimbalee xam na ko man ku ne ci sëñ bi yaay man maa yow foofu laa ne man genge wu ma concurrence suur naa bu yàgg moom mii léegi la ko wax fi yi jaar wax naa leen ko fi yi jaar tey bëgg a xew maa ko fent waa lan moom ma war a lan moom ma war a kiyati barab bii nag ma moom koo ndax kii su ma nit la sëñ Saliou Samb sa bis bis bi sa bis la bu la doy lu lay doy. te kii bis bu mu def sama bis la. waaw moo tax mu ne jox leen ma ma wax bu leen wax xaaral lii xaaral lee jox leen ma ma wax ñaari baat dem man Amadou gis ma moo ma gënal moo ma gënal waxtaan wi bàyyi sëriñ barke sëñ Tuubaa mu gis ma rek xam ni Saliou ñëw na moo ma gënal waxtaan li ci des mooy damaa war a war gaynde mooy damaa wax ak ay gor ni man ñii tànt di ma nekk te ci nekk maam waxtu ma wax ak yow te waxtu way waaj a jàll loolu taxoon ma doon profité yaa ngi dégg damaa war gaynde baal leen ma rek boo waxee boo waxee tuuti rek ma dem nag ma dem dégg nga waaye du ko rëccu de yàlla moo teral doomu aadama doomu aadama kenn du ko teral di ko rëccu xam nga kan laa ragal kuy toroxal doomu aadama waaye képp kuy teral doomu aadama yaa ngi roy yàlla yàlla dina yokk Seydou yàlla na nga gudd fan yàlla na nga wér sunu làmmiñ wi yàlla bu mu la lor allahuma la adur parce que di ba baax di ba baax mën naa jur leneen waaye yow da baax baax gu naturel yàlla na yàlla yokk la